te gaay abdul sifle na demi-finale poids léger fi ci ak Brosse El Bandit Brosse El Bandit moo yang ngemb lu ko fi moo yang ngemb lu fi looy El Bandit moo ñu woon gannaaw El Bandit jël na ko takk na ko Brosse takk na ko eh eh Brosse daan na ko Brosse daan na ko Brosse